waaw tey jii euh, ñëpp xam nañ ni mooy samedi bi njëkk ci weer bi euh, président de la république euh, moom moo instauré bisub selal bisub setal wax ni samedi bi jiitu nañu ñëpp ñu jug ñu mobiliser wu setal sellal gox yeeg goxaan yi mu wax ministre urbanisme que lépp luy moyen na ko dégager tey jii ku ñëw fii ci Diamniadio gis nga moyens yi nga xam ni UCG euh, indi na ko muy ay pelle mécanique muy ay benn mais également xale yi nga xam ni dañ leen recruter ci initiative xëyub ndaw ñi ñu toll ci ñetti téeméer ñu mobiliser leen maire Diamniadio indi ay équipe am ñu jël axe bi pour setal ko tey ji axe bi nag choix bi dafa pertinent parce que fii ñu taxaw dafa bokk ci emprise route nationale numéro un loolu day signifier que ni euh, AGEROUTE service mel AGEROUTE moom moo koy gérer mooy assurer la gestion donc état mooy assurer la gestion nit mënul ñëw mu jël ko aaki moo ko mënuñu bàyyi également euh, saleté beeg tilim bi melal ko benn melik mel euh, melokaan bu ñaaw te fii itam ñëpp xam nañ ni li fiy dugg ci oto yëpp Dakar lu ci bëre fii la ñuy jaar muy buntu Ndakaaru ñëpp ci idée bi ngay njëkk a am rek moom mooy continuer mooy de sa moo tax ñu bëgg képp nga xam ni voyageur nga ngay dugg si Dakar vue bi ngay am mu nekk vue bu rafet cadre bi ngay gis mu nekk cadre bu sain environnement bi ngay gis mu nekk environnement bu rafet moo tax euh, choix bi muy lu am solo ñu bëgg bu ñu paree fii ñu saxal ko mais ñu continuer bu ñu jugee jam jógee Diamniadio dem ba Sébikotane jógee Diamniadio bor bi dem ba Bargny ba lépp lu nga xam ni ci RN1 bi la dépendre muy dépendance RN1 bi mu am euh, lu sell lu rafet. deuxième chose mooy préfet bi nga xam ne moo fi nekk ànd ak maire bi ak sous-préfet dama bëgg aussi ñu mobiliser entreprise yi nga xam ne ñoo nekk en face de la nationale pour que ñoom it ñu bay seen waar ci mbir mi rafetal ko sellal ko setal ko indi ay moyens jox ko askan bi bu ko defee askan bi sentir seen bopp ci li nga xam ne ñu ngi koy def. ñuy def nag appel à tous les maires niñ ko defee ci Moulay moo xam ni maire euh, mouvance nga wala maire opposition wala maire société civile bu ñu la xasee fal maire gox bi nga maire nag muy maire yi démembrement état la donc seen warugar mooy dugal seen loxo ci politique publique yi donc ñoom maire yëpp nañu jug ànd ak askan bi ànd ak autorité yi ba initiative bii nga xam ni bu baax la bu rafet la bu généreuse la ñu doon initiative bu ñuy saxal boo ko su ko defee incha allah euh, fépp foo dugg ci gox yi di nga gis ni gox bu rafet la gox bu sell la gox bu sell la. jaajëf sew ñu ngi sant bu baax euh, monsieur le maire mi nga xam ni moo ñu dalal tey ak autorité administrative yi ñu fi fekk. li ñu fi tax a nag mooy bésub setal bi nga xam ni kilifa réew mi moo ko décidé woon ni nañ ko relancer waat nañ ko yeesalaat. ñu tàmbali ko ci mois de décembre doon ko defee fii ci lycée sergent Malamine Camara euh, ensuite mois de janvier ñu dem ci emprise u TER bi train express régional tey nag ñu ñëw fii ci Diamniadio mais ci partie route nationale numéro un am na solo ndax euh, nekk na bërëb boo xam ni bëri na fréquentation ndax Diamniadio Carrefour la li ñu fi ñëw def si nag mooy fësal li nga xam ni moom la chef de l'état décidé maanaam bésub setal bi ñu delloo ko askan bi tàmbalee ko ci école yi mais aussi endroit yi nga xam ni c'est des endroits iconiques comme lu demee ni Diamniadio loolu waral suñu teewaay fii tey mobiliser nañu aussi ay moyen matériels yu demee ni ay camions une douzaine de camions si linéaire bi fii li ko tàmbalee Pointe de Diamniadio ba Sébikotane ak aussi ay pelle mécanique mais li ci ëpp solo mooy personnel bi nga xam ni moom la ñu engagé mat na ci 300 euh, jeunes yoo xam ni ci programme xëyu ndaw yi dañ leen recruter ñoo ñëw pour accompagner dispositif bi mais leneen aussi li ma ci bëggoon yokk mooy bu lii lu weesoo dinañ bàyyi fii une équipe permanente parce que bëgguñu aussi liggéey tey dellu si waat fekkat euh, la même chose donc aspect suivi ak pérennisation bi am na solo ñu ànd ci nag ak l'ensemble des équipes du ministère de l'urbanisme de l'hygiène publique et du logement le ministre est même représenté ici par notre directeur de cabinet, M. Abbas Ndiaye, avec la direction générale du cadre de vie à travers les écovigiles que vous avez vu aussi et l'ensemble des agents de l'UCG que je remercie au passage. Voilà donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu bu baax tey ji xew-xew bi am fii ci jam ñaajo ma ciy gërëm bu baax nag le gouverneur de la région de Dakar euh, mi nga xam ni moo tànn jam Diamniadio pour ñu lancé opération bi nga xam ni moom la ñuy wax. Euh, clean day di su set setal ànd ceeg programme mu xëyu ndaw ñi parce que jàpp naa ni euh, lépp loo xam ne lii day tax doomu aadama gën a am wérgu yaram danga koy dañ ci war a taxaw surtout maire collectivité maire ak commune parce que ñun suñu mission mooy fexe ba population yi am jàmm population dund ci condition yoo xam ne yi wax dëgg yàlla ñëpp dañ koy rafetlu looloo tax mooy kontaan ci bis bi ndax wér-gu-yaram moom li koy su li koy li koy li muy li koy jàppale lii tax mu am mooy ceet set kon set bi wax dëgg yàlla dañuy ñaan mu continuer kontaan naa bu baax bu ma déggee suñu xarit euh, Mass Thiam le coordonnateur wax ni na nañu Euh, activité bi mais dafi bay benn équipe boo xam ne day continuer di ñu accompagner ba béréb bii nga xam ni wax dëgg yàlla koo gis xam ni béréb bu macha allah la ñu war a liggéey liggéey bu am solo su fekkee ni lépp set incha allah li gouverneur wax loolu nu jàpp ñu ñu wax ci denc bi ñu def suñu loxo bu baax a baax puisque suivi bi ñi ngi ci woon démb te dinañ ci gën a nekk incha allah puisque man jàpp naa ne ku ma xam-xam ni propreté set dama jàpp ni dafa baax ci dunduk doomu aadama kon maa ngi ci démb maa ngi ci tey te dinaa ci gën a nekk ëllëg incha allah.